ci noonu waaye nag nii ko ma ki eh, indee lu bees la ci noonu ndax daana nu woo ci yu mel nii daana nu woo ci yu mel nii luy doxal réew mi ñu ànd ci parce que maa nekkoon deuxième vice-président coopération intérieur extérieur finance sénat te jànguma kon xam nga am na ma teg loola it moo ma jàngal li may wax waaye nii ko mag Macky jëlee teg ko nii nga xam ne région bu ne am na ci cëram rawatina nag Kaffrine ga ma dëkk parce que noonu pôle Diamniadio bii ngeen di gis nii am na foo xam ne fii ñu ngi fay tabax administratif boo xam ne bépp administratif bu nekk région Kaffrine am nga fa bureau boo xam ne bi ñooy ñëpp fa la ñuy bokk nañ ci hôpital yi gën a rëy ci Sénégal ñeenti hôpital yoy ñu joxon joxon ci Kaffrine wolbeuti ku sambu de commerce bi mayor man dañ ko tax ba ci kaw ba ci souf amu lenn ci dem ak conseil départemental ku wat université ala ibrahim ñe dégg ngeen ko Kaffrine nag mooy bassin arachidien ko defal defal nga rew mi yëpp ndax ñun xamul lu moy mbay te salum salum mom li ñuy def ci gi gi yoyu joojooyee ñu nax rek ba jël ci sundoom yi kenn ak ñaar di ci yóbbu waaye bu fekkee ne yëg nañ ko sax mën na leen a fomm ban toog ngoo tax noonu daanaka jàppale nu téye réew mi la parce que yu mel noonu bu ko nit ñi gisee xale yi gisee nun ñëpp ñu jàppale leen ñoom ñoom ñuy dox ñu xam ne xel tey lii nu leen jàppale doxal na réew mi doxal na leen kon xale yi ci des duñu préparé di dem parce que yéen ñii di wax ak man sax kenn ku ci nekk sa doom wala sa rek bëggoo mu dem parce que wóorul waaye nag gone yi xamewuñ ko noonu pôle bii nag euh, comme ni nu li ñu tax fii tey président def ko ñu ngi koy sant ci ko gërëm lii stratégie am la ba muy wër réew mi la ko waxoon ba mu ko waxee jaaxaloon na ñu bari waaye wane na ko wax na ko ñu dégg wane na ko ñu gis parce que lu mel noonu tey mu def ko région Kaffrine def ko région Kaolack def ko région Fatick def ko région Diourbel gëma nga xam ne mooy pôle bi ma bokk tey lam fa def ak ñun ñi mu jàppale man mii di wax ak yow mun jàppale na ñun ñëpp ci suñu liggéey ba kenn ku ne taxaw mën a jàppale ay nit loolu dëgg-dëgg ku bëgg réew mi rekk koy def te loolu bu fekkee continuer ne nii pôle bi ni nu ko waxee bu continuer nii ñu jàppale nu comme tey day continuer nii parce que ñi mu ko jox ñëpp ay niveau lan te ñi ko jox ñëpp kenn ku ci nekk dalay lay te moo la jàngal léegi moo la koy jàngal moo ko yor président du nommé nit topp ca day nommé nit ànd ak yow moo tax yaay mbiram dafa danger ku ko xam rek koo xam parce que ñu bëri dañoo dafa ne dalay lay topp ca ngay def muy topp ca naan ma nga nee baax na déedéet da lay ànd ak yow ngay def muy gis yaa xam nag la ngay def boo defee leneen loolu mun ne la du waaye pôle bii ma gis moom dëgg-dëgg nii nu ko waxee yal yàlla def mu continuer ko waaye bu ko continuer dëgg-dëgg incha allah ñu xool ñëpp mën nañoo sadd ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Ah. yéen it la ma daa wax nag ca Sénat moom laay waxati ndax nit ku ne jikkoom lay wax journaliste moom lu am solo la jiw réew. parce que bu du woon ak yéen lii nu fi doo def fanaan ko fay defit du dem fenn yéen koy génne yéen a koy wax yéen a koy wane. te loolu mooy tax nit ñi ñu jëbiti xam ne ñu ngi liggéey mooy tax ñu jëbiti xam ne ñu ngi am fun taxaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm président de la république daal ñu ngi koy ñaanal fa nu gudd ak wér yàlla musal ko ci yàqu yàqule ba fa mu jëma réew mi ñu ànd fa ak moom jëm fa ba mu àgg ak jàmm bu ko defee bu soobee yàlla yonent bi xaw ma kenn waaye nu région yi ci àll bi de noonu ñu jàppale ci lépp ñu ngi sant ñëpp ci ngi gërëm